assemblée nationale ak député yëpp maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci yokkute gi nga xam ne moom nga ñu indil euh, ci Sénégal ndax fiñ nga teg man nga ko xam nga lépp luy yoonu assemblée nationale am nga dal gu toll ni kenn ku ne mën nga koo déglu ku nekk di nga ko jox lim moom ñu ngi la ci sant di la gërëm di wax ne Euh, Sénégal gii Afrique Sénégal moo ci gën a am démocratie Sénégal moo ci gën assemblée ndax foo xam ne cent euh, cent soixante et quelques te munoo fexe fexe ba am contre mu mag dix personnes Sénégal ko am ci Afrique ñun démocratie ci lañuy ñuy dund ci lañuy ñuy dox te tamit fii mooy li wolof di wax. boo waxee ci néeg waxal ci pénc waaye dangay wax ci néeg ba pare dem ca pénc ma fii mooy pénc mi ndax tey budget bi dañ koo wote ba pare ci commission yi lañ ko wotee ba mu leer nañ presque lu mat cent et quelque wote nañ ko ci commission yi waaye dañuy dellu si ci pénc mi ñu leeral ndax bi ñu waxee dégg ngeen ñu laajtewaat ku am sa xalaat ci budget bi wax ko kenn ku nekk jël xalaatam ne lii dafa ëpp lii dafa manqué ministre bi wax ci lu mat cinq personnes sept personnes ku nekk wax ba ñëpp déggoo ne budget bi tegu na ci yoon kon kay xam nga ne loolu mooy leeral kon budget bi budget bu leer la monsieur le sa budget bi nga xam ne moom nga moom élif ko ci sa ministère leer na yeneen budget Sénégal yi yépp yi nga xam ne moom nga moom leer na parce que dañ leen a wote ci ay commission ba mu mat sëkk ñu tàcc ko te fu fu nekk daay am contre ñaar wala ñett wala ñeent waaye war ngeen a bàyyi xel ñiy wote budget yi ndax képp ku dul wote sa bigse waroo ko recevoir waroo ko jox dara ndax bu ñëpp meloon ni ñoom réew mi du dox te bu doon seen sago tey sa bigse bi duñ ko wote ñun ñii xuloo di wate ku ñëw bu leen soxlaa gis leen jafe te ñoom fuñ fuggee seen bunt yi ngeen ubbi leen loolu moo tegul ci yoon nañ ko bàyyi nit su la dul dimbale doo ko dimbale nit su laay xeex danga koy xeex boo dee nit ko am fulla képp koo xam ne nag jàng amoo xam-xam ndax yow da ngaa dem ca daara ja mokkaloo alxuraan nga ñëw jënd silaabeer ñu dina ko liiral boo ñëwee jël bulletin di wax nit ki naan ko liiral ma ko kooku boo waxee ci penc da ngay am gàcc ndax li ngay wax xamoo ci tuus kon ay nit ñu ñàkk yar ñoo xam ne amuñu xam-xam ñooy nekk ci lu mat téeméeri nit matuñ ñaar fukki nit te bu ñëwee yaakaar ne mën nañoo lijjale nit ñi dañ leen a ëpp yar ëpp leen teggin ndax benn nit rek mën naa yàq ndaje ndax bu ñëpp di wax booy coow ñëpp noppi dañ naan yàq na ndaje ma ñëpp daw nañ ñu nga fee ca óol ba di xaar télévision yi pour ñu mën leen a wane waaye bañ nekk ci commission yi ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite parti yépp amu ci kenn ku ñëw soo waxee ñu ne xale yi ñu ngi dem ci mbëkk mi man 80 laa dem Paris fanweeri junne laa jëndee billet bëri ci samay morom ñoom ñu koy wax yépp ba ñuy nekk ay ministre ak directeur boobu Macky Sall moom agul réew mi seen doom yépp ay passeport diplomate lañ leen utal yóbbu leen Paris ñu jàngee fa amu ci kenn ku am usine boo xam ne bii mën faa dugal xale kenn kuy bay tool pour nga dugal fa xale yi amul kenn ku dimbale genn gune gi deen ak yow sa kër amul su ko defee ñu ñëw naan xale yi xale yi xale yi France moom ñu yàgg nañ faa dem ba aduna sosoo ba tey ñaa ngi jógee Gambie ñaa ngi jógee Ghana ñaa ngi jógee Sénégal ñëpp ñii dem Paris ñii dem Angleterre kon loolu mun ta ñàkk dama ne nañ xam ne Sénégal bi genn la ñun ay nit ñu jub lañ yor ay nit ñu baax lañ yor ndax juróom-ñaari nit rek wala juróom-ñett mosul ñoo wax contre mu mat fukki nit mosul am ñii dañu yëkkati ñaari loxo ñii yëkkati bopp ak tànk waaye duñu mos a fexe ba mat fukk kon démocratie am na ci réew mi président dinañ la gërëm dinañ la sant ministre de finance dinañ la ñaaxaat nga góorgóorlu ak ministre yi topp ci sa kaw yépp parce que lii liggéey ak yar ak réew mi baax moo tax danaa seede nag deer deer xaalisu réew mi la joxe nit di réew mi la leen jox ku ci bëgg lu la leer li nga xam ne moom lañ jox ñooro indil ma dossier ma yóbbu la ci banque yi wan la ñu fay ak ñu fayagut Pape Sarr ñun ñoo ko dalal xaalis bi ko joxoon dañ koo jox nit ñi ba mu jeex ñoom ñii ñëpp di wax nekk am nga ci ñoom amu ci kenn ku dimbale say bokk ñi nga dëkkal xaalis bi ci réew mi lañ ko jëlee dimbale ko xale réew mi xëy na ñu fay walla ñu bañ a fay waaye ñoom ñëpp jot nañ ci man de région bi ma dëkk fu mu ñëw fekk ma fa xaalis ba joxe na ko joxe nañ ko te ay reçu lañ am ku ci bëgg lu la leer ñu war ma wax